برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان 아멘. الناس لا اله الا الله الله الناس الناس الناس Cheikh Ahmed Tidiane ibrahim Niass ñoom ngeen di ànd ak nii mu nekk ci oto bi nii ñëwoon naa file bay ñibbi ba ñëwoon naa file bay ñibbi nii moom ngeen di gis nii ci oto bi di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi may ko fan gudd ak wér gu yaram al xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass moom ngeen di suivre nii en direct Fayda Tidiane ya suivre Fayda Tidiane ya, ci julik Mawlaay al Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane ibrahim Niass mom leen do ànd ak ni ci julli nafile yi mo la ñu gunge xalifa bi la ñu gunge ni mu ñibi ci kër La ilaha Yeah. مولاي الخليفه الشيخ منتج المسلم ngeen di gis ni ci xew bi ba ñëwoon naa fi lee ñu koy gunge nii mu ñibbi incha allah donc ñaanal yàlla yàggal ko fi ne ci kon gudd ak wér gi yaram ñu mën koo suivre ànd rek ci fay tijaane La ilaha illallah Oh, ¡Gas! ¡Gas! ¡Venga, venga, combat bi dugg sa bulu waaye alxalifa ngeen di teewlu nii ci julli jumaa ji dama alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin incha allah sëñ bi mi ngi noonu di dugg ci nekk bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi uh, gudd ak wér-gu-yaram incha allah ñëwoon di naafale gi doon ubbi ci naafale gi bi ñu naafalee ba pare ñu gunge war ko ba ci kër gi ñuy jox ñëpp rig daje ba suba ak jàmm incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu